man moom salaamaaleykum maa ngi euh, ziar ñëpp di nuyu ñëpp di bëggee gars yi nga xam ñi ngi bàyyi xel live yëpp Karim Gueye la seen frère ngeen gën ko xam ci Karim Koumpaax aussi membre membre mouvement nitu dëgg euh, tey dañ ñëw si live yi nag tey moom dañuy dañ ñëw pastèquement quoi ñi ngi ne ñi ngi Dakar marché Tilène ñi pastèquement dañ ñëw dakaar marché Tilène euh, pour def waxtaan ak doxantu ak gis sénégalais yi waxtaan ak ñoom d'abord ci quartier électeurs yi 40 si 40 yi parce que aussi dañuy wax ne kenn ku nek war nga mëna am sa benn walu bo xam di ko def ci sa dëkk yow quoi sa dëkk yow dit que ñun on a fait le choix de soutenir euh, Ousmane Sonko si soutien bobu nous ñun en tant qu'activiste en tant que rappeur en tant que jeune sénégalais en tant que doomu réew mi doomu mérina ñëw Médina doxantu ci bir marché bi waxtana sénégalais yi ak quelques membres yo xam ñom ay membres Pastef lañ vous les voyez on n'a pas besoin d'être des millions pour wàcc si bi xamni ni kenn ku nekk am nga devoir fi nga nek nga dox wax sénégalais yi laaj leen ndax jot nañ sen carte d'identité ndax paré nañ pour voter est-ce que xam nañ candidat Ousmane Sonko moy kan lan moo tax ñun wax leen lan moo tax ñun ñu def choix tànn Ousmane Sonko donc yooyu aussi c'est très important parce que suñu devoir la quoi dama wax ni suñu devoir la patriote bu nek kenn ku nek kuy voter patriote da nga wara def jëfu patriote jëfu patriote nak moy ko xamni Sénégal da lay ñor. Sénégal ni mu lay ñoree nag bokk na ci nga comprendre lan moo lan nga war def c'est-à-dire les élections présidentielles soreetul jege na trop te ñun ba léegi jàpp naa ni liggéey bi dafa dafa am lu des parce que il faut ñu wàcc wax ak sénégalais ñu comprendre parce que kat am na ci ay bërëb yoo xam boo demee Alioune Sall day dem ci benn quartier am kenn ku mu fa financé kooku mooy am teranga. léegi ñëpp sa dañu am kersay kooku parce que ay wecc ay miet la leen di jox te sénégalais xam ngeen dafa am ngor nit su moom soo ko rek jox ko lu muy dundee.

il faut ngeen comprendre enjeu bi li si xew affaire bi mooy Sénégal dafa am benn président boo xamante ni Sénégal mosu ko am mooy président boo xamante ni dafa yàq réew mi ci yàq bu doy waar ci benn mandat. léegi nag ñun bu ñu nekkee activiste nekk ay Sénégalais nekk jeune jaayante nañ góorgóorlu ba fexe lépp loo xam ne lënc lënc la ak jafe-jafe bu nekk Sénégal ñu fexe Sénégalais yi xam ko. ñu fexe Sénégalais yi leer leeral ko Sénégalais yi ñu comprendre ko léegi nag ni koy leeralee Sénégalais yi noonu bokk na si ñu xam ni ñun tànn bi ñuy def tànn candidat bi ah ndax l'histoire du Sénégal musul am candidat bo xamanteni sénégalais ñokoy ñoo jox ko sen xaliss financer ko financer campagne am defal ko lepp sa ñun ñoy def lepp d'habitude en général sénégalais dafa am habitude wu chaque fois candidat bi muy tànn mom candidat bi day nek ko xamanteni mom moy mooy jël xaalisam di lañ ko jox motax day metti pour ñu gis ñu en tant que jeune sénégalais ñu nek ci mbedd Médina ci mbedd dakar yu di dox di wax sénégalais nan len ñun dañoo tànn candidat bo xam dañoo bëgg ñun ñoko ko ñun ñoy jël suñu xaliss di def 1000 francs ñaar dërëm juroomi dërëm diaspora bi ñi jaay ci cantine ñi nekk ci mbedd bi ñun ñëpp ñoo dajale suñu weccit diko def ci Sénégal pour mu jëriñ Sénégal manam motax ñu tan kanda bo xamanteni yorul dara mais bala ñu koy tànn d'abord dañoo xol satchul satchu alu réew mi amna diiné jeune la amna idéologie ak principe bo xamanteni intérêt Sénégal moko taxaju ba paré Sénégalais aussi comprendre enjeu bi nga xamni mo moo nekk ci ci affaire bi loolu c'est très important donc comme ni ngeen koy gisee ma ngi sama sister Aïda ak euh, sama mbokk passé bi nga xam ñun ñëpp ñun ñu ngi taxaw ah. taxaw ba ba mu leer pour pour ñëw rek juste pour leeral sénégalais yi lam xama jël aéro aéro aleykum salaam nako wa ah mi ngi nii waa gis naa yaa ngi ñëw taxaw lam la moo tax nga taxaw fi lam lan nga ñëw pour bëgg changement da nga sonn nañ réew bi metti na dëgër na affaire yi baaxu jaaru yoon mhm. ñu gis sonko am ci moom yaakaar yaakaar bu mag nag di ñaan yàlla yàlla bu yaakaar tas mhm. bëgg ci dem ba mu jeex nag tëj kër tëj njaboot tëj ñëpp to nan agent Adama Sonko ca kanam rek ca kaw ca kanam rek inshallah instant yi nga taxaw def ni te joxuñ la dara c'est-à-dire yow da nga ko def mais xam nga d'habitude Sénégal amuñu am tuddi gis ku jëk taxaw bàyyi njabootam ne day wàcc mbedd bi pour leeral la Sénégalais ndax ñu leen di nax lan mooy candidat bi nga xam mooy mën a jëriñ Sénégal te joxuñ la dara lan moo la motivé pour nga def loolu de un fi may commencé lii mburoog chocolat la kon mooy que ne ndékkiwuma kër gi ci mbedd bi laa ndékki voilà njaboot gi bàyyi naa leen fa ñëw naa fajar ñëw taxaw fii di ko jaraka jar ndax Ousmane sonk yi muy proposé ak yi muy wax am nañ ci moom yaakaar ak jaar-jaaram parce que ku nekk ñëw nga wax ku nekk am na loo ñëw wax kon nekkatul wax rek la ñuy gëm mais nit ki da ngay gëm waxam ak jaar-jaaram nga gestuwaat xool gannaaw fu mu jaar te jaar-jaar yi am nañ ci yaakaar ndaxte jubal na macha allah jubal na ndax bu bu doon naka su dul noonu defoon na ko kon weer nañ ko yàgg na ndax bëgg nañ ko taxal amul luñ ko taxal mm. waaw ñun daal Sonko rek waaw ñu ngi nii di war waa def porte à porte nag. léegi nag porte def tey. lan mooy objectif proximité bi ngeen def tey. objectif bi mooy ndax Médina ku ne xam na ni dëgër na lool. waaw ñi fi nekk ñu ngi fii di yàq nit ñi loo di leen jox loo xam ne du leen jëriñ te fu ñu toog da leen di topp di leen topp ci loo xam du leen jëriñ. Mm. objectif bi mooy dugg ci kër yi dem ci magasin yi waxtaan ak ñoom leen ne leen kuy Sonko ak lan mooy projet ak lan la taxawal ak lan la lañ la ñu ñun sénégalais yi loolu daal moom mooy objectif. ok boobu mooy Aïda sama sister Aïda

ñi fi nekkoon ñëpp sàcc Sénégal yàq ko dañoo dee bàyyi Sénégal donc kon ñun li mën a dimbali Sénégalais yi mooy kenn ku nekk sa devoir mooy li nga pare pour def yow li nga pare pour def li nga pare pour xeexal sa mooy nga dimbali Sénégalais yi leeral leneen kan mooy Ousmane Sonko nan la nekkee candidat bu baax nan la mën a dimbalee Sénégal lan moo tax ñu tànn ko lu ko utaleeg yeneen candidat yi loolu tey moo moom la ñuy def wàcc pour def ci mbedd bi loolu la ñuy wax mu def ay dox jéego doxu leeral doxu leeralal bu baax ba mooy lu ñu tuddee nag euh, doxantu pastèvement quoi télé pastèvement expliquer nit ñi lan moy kan mooy Ousmane Sonko lan moy candidat bi nga xamanteni moy candidat bi nga xamanteni mo moo uteeg yeneen candidat yi. mon frère alors waaw mon frère je te présenter. waaw waaw gaay yi ngi nuyu ñep ñuy sétane man la mohamed rasoul Dieng donc chef de cellule Pastef à Strasbourg euh, en même temps membre du pôle stratégie et Pastef. donc man maa ngi wax ak yeen fi ci Ndakaaru donc euh, plus particulièrement donc fi ci marché Tilène pour ñëw euh, déployer en tout cas promenade patriotique bi nga xamné moy dem waxanté ak suñu compatriotes sénégalais donc ñu ngi fi donc ci marché Tilène dañuy ratisser marché bi dugg Médina waxtaan ak suñu mbokk présenter programme Ousmane Sonko wax enjeu élection

simplement parce que je pense que tu au réew mi scandale

taxaw pour rek taxaw c'est très clair merci beaucoup sénégalais euh, il faut que ça soit clair il faut sénégalais comprennent. on n'a pas besoin de on n'a pas besoin d'être des milliers de milliers de personnes dans les rues de Dakar pour conscientiser sur une population, pour conscientiser la jeunesse sénégalaise. On n'a pas besoin d'avoir des beaux t-shirts de Pastef. Certes, on a mais d'obligation. Solo am 10 000 francs pour dox ci mbedd bi soxla ñu jox la 1000 francs pour nga xeexal sa réew lo am ku nekk li nga am mën nga ko jëriñal sa réew am nga sa xel am nga sa xalaat am nga sa xol am nga sa yéene nga ñëw taxaw leral sa benn frère sénégalais même bu dee kenn la benn sénégalais nga waxu ni ko est-ce que am na carte est-ce que jonne ci carte électeur fan lay voter est-ce que xam na lan moo tax muy voter lan moo tax élection yi kañ la est-ce que ban bureau de vote lay voter est-ce que xam na kan mooy Ousmane Sonko est-ce que xam na ni am na candidat boo xamante ni sénégalais ñoo ko investir le peuple le peuple ñun do lay ñoo dajal suñu juroomi dinam suñu ñaar dërëm ñun ñoko def député ñun ñoko ñoko jox privilège yi tax mu mën di tukki di dajal di di campagne ñun ñoo bëgg ñun ñoko pousse pour mu léral ñu ni sacc amna ci réew mi ni Sénégal depuis 1960 ba lay ñun ñuy nax Senghor daf ñu nax Abdou Diouf daf ñu nax abdallah wad daf ñu nax Macky Sall ñu daf ñu ray daf ñu dogale jël bu mu delo wat ko fim nekkon jël Sénégal joxat ko tuba bi jël Sénégal moment biñ toll ni mu dem ñu lebal ko ay 7000 milliards Tout 7 000 milliards yoy ñom ñi ngi ci xex bo Si France di nga fekk gilet jaune ay nit yo xamni ñom ñi ngi xex bu ñu leen jox ñom ndax impôt ñu leen koy daggé ci France yi France ngay président mu France ñu milliards France yi Nous nan la faire. Nous, lutax Sénégalais duñu poser ay lan trésor public lan moy lan électeur lan liste électorale ah, lan présidentielle L'homme motax gagné euh, élection présidentielle passée?

yow dañ ciy cotiser man damay cotiser jaakatu caaf bi day cotiser jaakatu cere bi day cotiser kii yor café gi day cotiser ñun ñëpp ñoo dajale suñu xaalis loolu la ñuy wax argent du contribuable loolu lañ jël ñu jëm dem di ci fay policier di ci fay Macky Sall Macky Sall lal ba muy tëdd laax ba muy lekk cuisinier ba koy togg oto ba mu yor chauffeur ba koy dawal ñun ñoo koy fay man maa koy fay yow may saran yaa koy fay Aïda moo koy fay ñun ñëpp ñoo koy fay ñu fay ko pour mu liggéeyal Sénégal léegi ñun fay ko ba ba pare toppaat ci moom di daw naan kon jox ñu dimbali ñu ndax ñun ci autoroute ñun kat ndeysaan amuñu essence ñun kat amuñu ndox ñun kat après topp ci ginnaawam di daw imagine nga am sa jànq bind ko fay ko ba noppi jël ko di ko sarax pour mu raxasal la douze di ko sarax pour la sa kër c'est-à-dire communication bi foofu la nekk mooy leeral na sénégalais yi ñu xam seen devoir lan mooy devoiru sénégalais sa doom école ba muy jàngee professeur bi koy jàngal yow yaa koy fay mindaan maa ko mindaan bi da koy fay jaagatu caaf bi da koy fay parce que xaalis bi ko xaalis bi ko contribuable bi ñuy fay loolu yëpp foofu lay daj yow yaa war a dalal xelu professeur bi ndax mu xam ni liñ koy dagg warul yem rek normalement professeur deux cent mille francs lañ koy fay Sénégal te boobu député ñi ngeen fay ay daanaka deux millions député jox leen 4-4 jox leen jox leen 4-4 jox leen passeport diplomatique ah jox essence ñu ñuy wër dëkk bi ñom sax ñi ngi kaas ni auto vitesse yi ñu jox sax dafa ni sonal ay automatique lañu bëgg bu fekk na boo demee Fongoling amuñu ndox bu fekk na bo démé tuuti rek ginnaw Thiès jigéen boo sine ci saret lañ koy teg bo c'est-à-dire yooyu yëpp ay mbir yo xamni te pourtant ñu la président bi amna caisse noire budget bo xam assemblée nationale lañ ko ko votélee bu nek ay presque 7 milliards mom moko mom bu ko neexee mu taal ko sànni ko bu fekk na yow ñi ñangi am ay jafé jafé ay jafé jafé faju étudiants yi secteur privé bi dakk nañ leen lutax ñu dakk leen parce que 16 milliards rek la école privée di laaj pour ñu fay leen ko boobu fekk na président mi ngi fooy àllu réew mi boobu fekk na Marième Faye Sall mi ngi fooy àllu réew mi boobu fekk na ñi ngi jiiñ Mamour ay 94 est-ce xam ngeen milliard xajul ci village 100 mën nga ci tabax poste de santé 100 millions mën nga ci tabax poste de santé ko ba mu baax nga gis benn nit bu sàcc 94 milliards nga gis benn nit bu ñuy jiiñ yaa ngi nii musul am dans l'histoire du Sénégal nga gis président boo xam ne 59 milliards lañ ko jox mënu sax defar benn carte bu baax Abdoulaye Wade gàtt gàtt 27 milliards yi ñu ko joxoon defar na si ñaari carte defar na carte d'identité defar carte électeur te ñëpp jotoon nañ si Macky Sall mënu sax defar benn carte benn carte benn carte ci 59 milliards donc réew mi dañ ko pasar pasare yàqu ko réew mi képp koo xam mus nga macc tàngalu buur ñun du ñu ànd ak yow Ousmane Sonko bi ñu àndal tey li tax ñu ànd ak moom lu dara parce que xool nañ ko ba gis ni mësta ànd ci lenn luy sàcc mësta bokk fekk fu mu sàccee pe bu nekk def nañ ko pour tàqal ko mënuñ ko mu nekk xale nekk ci digg ndawam mën mën foowee mënoon tiim kees gi mëq ci sàcc si def na ñu mu doon liggéeyal am kër fu ne am passeport diplomate ji taxawal fu nekk jël àllu réew mi fayoo ko defu ko mu wan ginnaaw àdduna ndax Sénégal wan ginnaaw àdduna ndax boppam ndax diine d'abord ñu tànn ko parce que gis nañu critères yi ñu soxla ci nit moo xam ne mën na jëriñu réewam ci moom la njëkk a feeñ du moom nag mooy régler problème mu Sénégal mais day bokk na ci ñiy commencé régler problème mu Sénégal Sénégal du Ousmane Sonko moo koy defar mais bokk na ci ñi ànd ak ñun la jeunesse sénégalaise defar Sénégal moo tax foog boutique bi xam il faut il faut jaay de café bi xam il faut nous Nous moto bi xam apprenti car rapide bi xam na xam ñu nous ku nekk xam ku nekk Nous taxaw expliquer ñu Nous sénégalais ñu comprendre devoir lan moy ce devoir tay ñi ngi wax on a très bien compris que ni wax bi du nekk lo xam day grand jël. grand citoyen sénégalais. Euh, bokk Pastef les patriotes donc nekk coordinateur Pastef ci Grand Yoff ñëwoon fay tay ji fi ci medina and ak samay frère patriote manam ñun patriote moy ñi nga xam dañu dañoo sentir Sénégal bëgg Sénégal am njàqare lo ci avenir u Sénégal fi mu jëm ëlëk parce que dañ nak ci euh, ay guddi yu lëndëm suñu réew tay ji dafa am ay nit yoo xam dañ ko jël en otage téye ko bañ ko bàyyi mu noyyi jël suñu koom-koom en otage jël suñu suñu àq ak suñu yelleef yëpp jël ko en otage ndax tey jii euh, ku xool processus électoral bi nga xam ne moom la nga xam ne moom la ñu war a déroulé dara dalu ci xel ndaxte déjà carte d'identité yi kenn joxewu ko normalement euh, deuxièmement ñenn ñi génn nañ leen ci ci ci ci processus bi maanaam génn nañ leen ci ci fichier bi ne leen du ngeen voté dañuy nekk ay sénégalais comme ñëpp am am am am am am bokk ci réew mi war voter joxe sen sen sen sen sen sen xalat ñu xañ lan ko lu gëna a ci ay sénégalais tay ji ci ay jeunes surtout dañ leen du ngeen voter ministre de l'intérieur nañ leen du ngeen voter ta pourtant inscrit nañ sur liste yi donc yooyu yëpp nekk ay manquement yo xamni ñun mënuñu ko sétane

maanaam ci seen politique sénégalais kenn lañ fi gis mu nekk benn leader boo xam ni macha allah mucc na ayib ci lu bëree kenn mësu ko xam ci ay sàcc alalu réew tey képp koo xam ne yaa ngi fi ne woote woo naa kii da nga nekk bëgg nekk président ñi gën a bëri si ñoom du mën a ñëpp mais ñu gën a bëri ñoom maanaam accusé nañ leen fi nii jël nañ alalu réew mi wala jëloon nañ ko dugal nañ leen fi kaso wala yu demee noonu mais Ousmane Sonko dafa nekk koo xam ni loxoom dafa set wecc ci lépp Le petit parce que imaginez que vous mi ngi l'administration dans inspecteur des impôts de classe exceptionnelle vous avez une place qui bu privilège bu ko neex am alal am lépp mënoon a mel comme gars yi bokk ci système bi ñu jox ko wàllam mu am mu ko neex loolu yëpp mu jël ko mu sacrifier ko pour Sénégal dafa sacrifier boppam pour réew mi xeexal Sénégal kaasa senegal moo waral ñu dàq ko ci liggéeyam mu continuer di xeexal Sénégal même assemblée nationale nekk fa benn député boo xam ne dans l'histoire politique de ce pays mësul na gis bu mel ne Ousmane Sonko tey ñun ñu gën a bu ñu yeewoo tey ji bu ñu xamee lu bëri Ousmane Sonko moom moo doon lanceur d'alerte numéro un bi moom moo xamal sénégalais ni ñu ngi ñuy sàcc ñu ngi ñuy fooyee ñu ngi fooyee alors réew mi que Sénégal waroon a bu yàgg a yàgg yàgg que ñi dañuy tardeel que war nañu mën a liggéey Sénégal ci ngor ci dignité ci njub loolu gëmloo noonu ko te dugg na suñu bay xool ñun ñëpp gëmoon nañ ko mais dama noonu benn instant ñu ñëpp a xàddu woon kenn bëggatul woon dégg bu politique bu la politique sax dañ wax politiciens, politicien bi daal mooy ki nga xam day alal dara dalay mais ne politique lu noble la politique dafa da ngay pour ce réew maanaam da ngay def moyens pour développer sa réew lii bokk signification politique donc moom tey ji indi na de la politique pour suñu pays pas pour nos intérêts crypto personnels tey nangoo nañ def para politique parce que gëm nañ ni réew mën nañ ko war a mën a yore ci ci ci ngor ak ci dignité que nit war nañ la mën a jox poste de responsabilité nga gérer ko te doo fa nekk di sàcc ay alal di nekk ay multimilliardaire comme ni nga xam ne fii Sénégal ndax fii tey Sénégal moom gis nañ ni ñi fi nekk ak ñi fi nekkoon ak ñi fi nekk tey ñëpp non non kese la maanaam bu la joxee réew mi yow bu la joxee poste de responsabilité directeur benn société wala ministre yow ngay xëy suba en 5 ans nga xëy suba nekk milliardaire comme suñu président suñu président 5 ans la def génn nekk multimilliardaire imaginez yow nga def 5 ans ci ci nguur nga génn nga def ay déclaration déclaration de patrimoine ne am nga 8 milliards fan nga ko jëlé? fan la ko jëlé? que ma sonu jëlee Yoy dafa wara jeex Sénégal dafa jot nak ñu jël alalu Sénégal ñu jox ko Sénégalais dafa jot nak ñu delloo mbir mi Sénégalais dafa jot nak suñu papa ak suñu yaay dem à la retraite parce que suñu papa ak suñu yaay dañuy fayal ñu jàng duñu topoto duñu jox ñu lekk ba mag ñu wara a jàng war a tekki duñu am liggéey duñu am dara ñu kon ne duñu dundal loolu dafa doy dafa jot nak ñu dafa ñu dund Sénégal boo xam ni ñun ndaw ñi ñu wara mëna mën a liggéey mën jël la relève wala jàppale suñu waajur yi kon ñu ngi woo suñu papa yi yaay yi suñu mag yi suñu ndaw yi président Ousmane Sonko xam ne kii avenir bi kii moo mën a defar Sénégal incha bu ànd ak ñi nga xam ñoo jikko Sénégal dina baax merci beaucoup je crois que le message est très message bi benn ndongal bu moo leen nuyu. salaamaaleykum Dior na leen defaay. ziar ziar da ngay dégg. dégg nga ñu nëbbatu ñu ñun. waaw gëm-gëm la ñuy doxee. amul nëbbatu ñun xoolal. waaw ko sif. kese waaw fii ci centre commercial. waaw bu mel ni man Ali Gueye ñu may wax Ali Koroban. waaw lan moo tax nga tànn Ousmane Sonko. dëgg. képp moo tax ñu ànd ak moom. te nag naa la xamal leen lu leer laay wax chaque jour moo ko samay biir mbokk. nee naa leen man Ali bés bu ma Sonko waree sama carte de vote dama koy damm dootuma voté. waaw que demoon naa ba ne dootuma voté ti jël sama denc ko. Sonko moo taxaan mu duggaat sol t billaahi wallaahi wataalaahi mosuma sol t politicien c'est première fois nag. mais nag xoolal di la koy ñaax. <laughs> macha allah merci beaucoup merci jaajëf jaajëf vraiment. waa ñu tàmbali ah. ñu tàmbali fan fan la ah? man Modou Mbaw laa Modou Mbaw ñu ngi lay ziar Modou Mbaw xam nga Sonko waaw après après waaw mais jàpp si rek ndax xam question bi rek ndax xam nga dañuy dem am bis ah da nga bis ok am nga solo am nga solo dama ragal caméra don't worry about that ba ba ba déglu ñi mais caméra bi laa bañ gaay da mu ko film non ok maa ngi déglu maa ngi déglu ah, am na ñu bëggul caméra non non ñu dem mais mais je ne voudrais pas qu'il soit On veut comme On veut comme parce qu'il doit qui va à c'est que peut avoir plus de temps pour mais amul problème tu sais c'est quoi non. tu sais c'est quoi le xam nga tu sais xoolal tu sais c'est quoi le xam nga tu sais c'est quoi le problème des Sénégalais ah mooy position la ñu. Sénégal du jël position waaw. waaw lu ñu dem nañu avancé wu. est-ce que ñu dugg nii wala avancé nii. mais xoolal boo wàccee woon lii nag. parce que am na ok ok. waaw gars yi nag dañuy gars yi dañuy bañ a feeñ ci affaire yi quoi dañuy ragal live yi xam nga ñu bëri ñu bëgg di wane seen seen mais ñun ñu ngi commencé dugg ci marché bi xam nga dañuy commencé dugg ci marché bi dem gis yenn yenn yenn gars yi ak yooyu waxtaan ak ñoom comme ni ngeen ko gisee nii

ويجيبوا فيسبوك صاحبنا ما خاطر يا جارم سخنة يا عم يا كابل ما تجي waaw sama gars man damay dama war a wax ak dama war a wax ak dama war a wax ak ñan nit yi nga xam bon peut-être dañ lay gis xam la

yow fi nekk centre commercial. fii laa nekk centre commercial élection yi passé Macky laa voté mais dëggam na nag semaine la quoi. rëccu naa ko bu Sonko rek ba suuf des libre man jàpp naa ne bu fekkoonte ne kenn am na benn dawaar moom boo xamante ni moo koy wooteel kese kese man lay doon moo koy jàppale man maa ko choisir ba suuf si des libre du ma bàyyi. yaa ñu ne yaa ñu ko parrainé. man waaw maa ñu ko parrainé Sonko man Sonko rek. nga foog ngay voté man. Eh, région de Fatick laa Fatick ngay voté Fatick laa dëkk Fatick nga dëkk fi Macky Sall dëkk laa dëkk mais ànd maam mais da ngay dem ba foofu noonu damay dem ba foofu ma votel ko fii laa da ngay dem ba foofu votel ko retourné waat c'est très important dégg ko loolu am solo trop trop trop wax am solo maanaam waaw am solo trop trop jorin tur bi naka la lay ya. ziar mana naa la laaj quelque question wala ah da ngay toog gars non jëluma jëluguma la non jëluma jëluma jëluma la lii si man la nekk si man la nekk nii jëlu la lii day tourner image jëluma la sam bopp lay jël ni wala do dégg sam bopp lay jël ok kenn la toñ incha allah mu ndende en min ɗon jihadi ko yew tawi on faama ima image aɗoma jihadi de waabi ihtilaf ihtilaf dafa yaam dafa yéeme dafa yaam dëgg la kooka la nit ki day topp ki topp dëgg la akay dëgg akay dëgg parce que boo xoolee mu dee ay at at kii la doo ko jox ku gëm yàlla ndax lan abi ay jihadi kii la waabi doy na waar te maanaam ko réew mi sax ni ñu ko tëggee ci wàllu institution constitution yoonu diine da cee nekkul ki nekk la mu gëm affaire am la waaw ñoom kon ñoom amuñu droit di li xool li mu gëm waaw ah, mais loolu mënul ñàkk loolu politique xeetu politique la rek pour yàq dara loolu dara loolu mënul ñàkk xeetu politique la rek pour yàq dara waaw dëgg la su ko melee ñu wàccaat ci mbedd bi rek jaayante ko moom saf saf ok je vais vous pour expliquer ce que vous dafa am loo il faut que comprendre compreniez quoi sénégalais yi des fois man interpeller quoi comme gis dire ko naa Karim yow activiste yow position je fi nekk di nekk cest à je suis position man parti politique mais man suis bokk ci ñi nga xam ne gëm ni comme ni ma ko je sama bët su vous ma il faut gars yi de di ragal il faut ragal il faut que di jël position candidat parce que soné diou baxul da nga naan diou da bax soné diou baxul da nga naan diou da bax sénégalais na sénégalais jël sen responsabilité jël fi Macky Sall taxaw tan candidat bi nga xamni dañuy xamni ki xaliss taxul nga tan ko man xam ngeen ni mos man juroomi deureum xaaruma ko ci politiciens yi xaaruma ci ñom mais kon suma gisé kenn ko xam mëna ko dimbalé sama askan mu dee amna ñatt nit yu ma gëm man ci sama conviction sama principe dinañ and ak man ñu voter li ki nga xamni gëm nañu moy jëriñ Sénégal légui nak dafa am ñu nan man yow Karim léegi ki ngeen di fal nii su defee erreur suba na ngeen di def wàccaat ci mbedd bi ko rek xeex bi moom du jeex ndax Sénégal xaajugul pare du affaire saxal mbaa ma sulli moom la wax ma ni Ousmane Sonko du moom mooy régler problème Sénégal mais daf koy commencer régler au moins ñu am benn candidat boo xam ne gis nañu kii xëy na xëy na xëy na quoi commencé na mais Macky Sall xëyul commencé wul jegewul sax commencement amul benn principe amul idéologie amul dara révolutionnaire donc kon kooku mais au moins ñu benn candidat boo xam ne mi ngi xool ressource minière Sénégal mi xol jàngum Sénégal mi xol pajum Sénégal mi xol jafe-jafe Sénégal mi xol xool musul am ki ñu musa fal yëpp kenn mus ci lijeenti Sénégal France ngay xëyal diko gontu mais am nañ benn candidat bu ne mom au moins day jëndi sans CFA day won France ginnaw mais koku mais man mom lay àndal su ko wàccee billaahi su wacce loolu ñu taxawaat ci mbedd bi xéxat ko rek outa kenen tegat ko rek ndax jurit day am rafet bu njort ndjot bu rafet ci mbokk juritam mais kéro mu gis contraire c'est très important mais gars dañuy daw caméra bi quoi xam naa ne moom gars laa bi mooy loolu. salaamaaleykum kii bi ñu ngi siyaar na ngeen def. alhamdulilah. salaamaaleykum. Diop siyaar sa. yéen si waar ci kawam ah, gars yi. kon yéen ñu ngi masque leen gars ñu ngi si cantine dafa am ñoo xam ne bugguñu ku leen ku leen filmer quoi bon kon doo tooñ nag aussi. da nga gis ni pare nañ pour def mais beaucoup ko leen filmer alors donc je vous prie de partager les vidéos mais may wax ni képp koo ramener ni euh, képp koo xam ni membre Pastef nga membre Pastef nga da nga gëm ni Ousmane Sonko mën dimbali Sénégal mën dimbali Sénégal ñun ñëpp suñu bopp moi yow jugal nga def li sa koñ li ñun li ñu def ni tey Médina na ku nekk def ko sa bon boo paree sa koñ ñu def ko koñ stop c'est très facile c'est mooy nga gis nit laaj ko na xam Ousmane Sonko expliqué ko ban candidat la mooy koo xam ça tu alu réew mi laaj ko na am quatre électeurs électeur fan lay voter kan la parrainé mu xam xamal ko Sénégal xamal ko niko ko dafa am wàllam dafa nekk ci dëkk bi dafa am wàll ci bi warul bàyyi ñuy jàpp dëkk bi di ko foowe na ku nekk na Sénégal yëpp jóg on est à presque un mois et demi des élections présidentielles donc devoir le Sénégal bu nekk bu wootee patriote nga jóg donc tous les membres de ce de ce de de de Pastef ah ku kep ku wootee patriotisme mang lay ñaan nga jóg jóg leen jóg leen ngeen dem ngeen dugg ci dëkk bi ngeen dem Dakar bu nekk géejuwaay nañ dem def ko géejuwaay ñu nekk Fatick nañ dem def ko Fatick ñu nekk Louga nañ dem def ko Louga na ko ñëpp def na ku nekk dem ci dëkk bi expliquer dugg ci cantine yi dugg ci boutique yi dugg ci jaaykatu caaf yi expliquer leen lan mooy politique kan mooy Ousmane Sonko nan la ñuy cest à leeral Sénégal yi ñu xam seen devoir quoi libérer Sénégal parce que Sénégal libérer ko mooy mooy Sénégalais bi dafa jàpp ni moom politicien bi moo ko war a jox ni alal bi policier bi di ko jox policier c'est archi faux le peuple qui gën ki ñu fal pour pour donc c'est des c'est des choses que devoir la donc je ngi ñaan live bi partagez le bi ñaar comme ni Sénégal def ko message message bi dem leeral leen Sénégalais sen devoir ñu xamni ñom dañu wara juk a sen sen sen candidat dañu wara juk xam kan moy Ousmane Sonko wax nit ñi kan moy Ousmane Sonko ñu comprendre ñom ñëpp ñu xam. c'est très important et puis c'est très très important comme niko ko waa niko defee ni ko ñëpp di defee loolu c'est très important. ni ko. Hmm. waaw neuf fi mu ne dama ko dag waaw dama ko dagg dama ko dagg dama ko dagg dama ko dagg waaw gis nga bëgg gars yi duñu donc donc moo tax xam donc maa bëggee ñëpp di siyaar ñëpp sénégalais dañoo ragal bëgguñu koy filmer ku ne tamit yaakaar ni Macky mooy ñëw fii quoi xam nga mooy kaso bi mooy mooy mooy mooy mooy idéologie bi nga xam ni moom libre ñoo libre quoi en fait libre ñu bu ma filmer non Ousmane Sonko laa àndal mais bu ma filmer non bu ma wane fii cest à loolu da ngay gis dara parce que xamuñu un devoir filmer dara mais pour nous, bu leen filmer non Et eh, waay ma don jox 2000 francs politicien bi nekkon sama koñ don ma jox 2000 Et eh, ba waaw PS bi ah sa de PDS la nekkon sama xarit la de ma xarum de problème sénégalais au fait nak dafa nek ay mbir ñun dimbali compagnie donc on message bi comme niko ko sawaay Fatou Bintou dégage il est temps que Macky Sall dégage il est temps il temps de xamal sénégalais Macky Sall baaxul sax ci àll waxuma la ci kër mais baaxul sax ci àll na ñëpp wooloo ñu ànd jëlee fi Macky Sall ci jële bu leer bu mucc ay jërë ngeen jëf man la woon Karim Gueye ak waa cellule Pastef ah euh, Médina waa ñun ñëpp ñoo booloo ñi ñu ngi jógee Nord Foire ñi ñu ngi jógee Grand Yoff cellule bu nekk ñu jël fi benn membre ñu nekkoon ci marché bi te ci la ñu nekk di ko continuer bon ci biir filmé bi nag da ngay a tooñ parce que nit ñi bu ñu ko leen filmé moo tax mujj arrêté laaj bi maa ngi euh, nañ ko tey képp faut fépp Nous rek boo ñu ñu ñëw fa sa gox def démarche ak yow leen ak ñun mu ngeen ñu 77 810 17 45 77 810 17 45 gox bu ngeen ñu woo nañ leen fa fekk ñu Nous à la élection préparer élection présidentielle yi jërë ngeen Nous wasalaatu wasalaam ala rasulullah Karim Gueye ngeen Nous ma fait nag si Nous erreur yi gis ngeen gars dañuy mer quoi